ay fan doon nañ daje di waxtaan liñ doon waxtaane mooy yan taxawaay lañ war a am en ay ndaw Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu jëm bi loolu amee chaque réunion buñ cay dem dañuy waxtaan boole ko di bind mboolem xalaat yi nga xam ne jugeekoo na ci ñun ci loolu lañu xalaat ne élection yii ñu jëm bëgg nañoo am programme boo xam ne bi ca njëkk mooy comme dañu ne onze sone moo nekk ci euh, commune bi onze zones yi nga xam ne ñoo fa nekk yépp zone bu nekk am nañu xemmeemteefu dem fa buñ fa demee dañuy dajale ña nga xam ne ñoo nekk ca zone ba mais aussi duñ ca yam dañuy invité mboolem association yi nga xam ne xam nañu leen ñu nekk ca zone ba duñ ca yam tamit bépp secteur wala benn bépp acteur boo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllu développement buñ eggee ci zone ba boole koog waa zone ba dañ leen di invité bu ko defee buñ toogee ñu waxtaan loola ñu tuddee ko ay causerie yoo xam ne am nañu yéenay def ko ci mbooleem on zones yi nga xam ne tey ñu ngi ci biir commune bi la ñu jublu ci loola nag mooy dañu ne nit ki bu fekkee ne da koo bëgg a fajal jàngooram li gën mooy nga dem jege ko ba mu wax la la nga xam ne mooy tawatam kon bokk na ci programme yi nga xam ne bëgg nañ ko def mooy def loolu nga xam ne ay causerie la wala moo xam ay tee débat wala xeet yu ni mel tënkal nañ ko programme ba pare wutal nañ ko ay date benn bu ci nekk tamit la nga xam ne moom lañ ci war a dugal ci am koom jàpp naa ne ci mémorandum bi bind nañ ko fi ndax nit ñi kat bu fekkee ne da nga leen di seeti surtout mu doon loo xam ne da ngay xooli ay gone yoo xam ne dañoo am xemmanteefu liggéeyal dëkk bi te yàlla dogal xëy na amuñu moyen tamit buñ demee non seulement dinañ def ak ñoom programme ci causerie yi mais dinañu am tamit tuuti ci as moyen pour jàppale leen ko ñu dérouler seen ay programme ñoom tamit ngir ñu gën a am proximité ak askan wi ci biir programme bi am nañ initiative fu def ay visite de proximité yoo xam ne xëy na dina am wuute tuuti ak yi ñu doon def ndax visite de proximité yi fi ñu gën a ciblé yoon bii mooy Euh, lieux yi nga xam ne ay lieux publics la lu mel ne tey marché yi jiital ca marché Ocass marché Daaru Xuddoos ak yeneen marché yi yaakaar naa yooyu yëpp ba tey it ngi ci mémorandum bi bind nañu marché bu nekk kan lañ fa bëgg a dem ak bu ñu fa demee naka lañ fay demee ak yan xeetu ndaw wala équipe yan lañ fay yóbbu te bu ñu fa demee tamit balaa ñu fay dem dinañu am message clé yoo xam ne moom la ñuy jox ñi nga xam ne ñoo pare pour dem fa Euh, maa ngi fàtte ci koñ yi dama fàtte woon ne buñ demee ci euh, zone bi zone bépp boo xam ne dem nañ fa mu am réalisation boo xam ne président defoon na ko ca quartier boobu aussi day bokk ci li nga xam ne biir programme bi dañ ko war a wan askan wi wax leen ko ba ñu xam ne président Macky Sall def na fi nangam ci biir commune bi ndax communication bi dafa am toujours loo xam ne dafay des te suñu campagne bi dañu bëgg a xeex loolu ba mu jóge fi moo tax loolu bokk na depuis 2017 ba léegi mën naa ne parti bi lu fi yëngu ndaw ñi ñoo ko yëngal tey nag bu leen bu leen bu tàccu tey kilifa yi laa bëgg ñu tàccu ndaw ñi waaw kilifa yi fi nekk ñoom laa bëgg ñu tàccu ndaw ñi di wax ne rek di wax ne rek kàddu yi ci ñaari anam rek laa koy laa koy jiw bi ci jiitu ay engagement la yoo xam ne jeunesse bi jël nañ ko dañu defoon réunion bi ñu jógee ci audience bi ak président wax ne booba benn liste officielle la gudd xamaguñ luy xew ñu jël engagement ne ñun lu président wax la ñu wax kilifa yi maa ngi leen di ne ndaw ñu fi nekk ay ndaw président Macky Sall lañu ay soldaaru président Macky Sall lañu engagement boobu nag dañ koy yokk mais duñ ci wàññi dara dañ koy yokk bu baax a baax mais duñ ci wàññi dara li may wax rek mooy li fi daan am ndaw ñi dootuñu ko nangu mooy nekk ci terrain bi guddeeg bëccëg bu dara xewul ñuy sonn bu élection ñëwee bu ñu defar comité électoral sax ndax ñu duñ fa am benn représentant loolu jeex na. cette fois-ci bu ñuy taxawal comité électoral ndaw ñi dañ fay am représentant loolu lu mënul ñàkk la li ci des mooy engagement yi mat na sëkk ñun jekk nañ pare nañu ni nga xam ne noonu lañu ko defee woon ci élection locale yi wàcc ci terrain bi def ay porte à porte ak bëccëg suba ngoon lu nekk ñu daj ko cette fois ci nag dafa gën a yokk parce que ñi nga xam ne suñu ay frères lañ yoo xam ne ñu ngi euh, ànduñu woon ak ñun cette fois ci ndaw ñëpp booloo nañ takku nekk benn say fas yéene jëli ndam li ñëw jox leen ko. parce que nag dañoo war a jox président majorité assemblée loolu amuñu ci xam nañu président ak bilan bi mu am day gañe day am day am majorité assemblée mais nag enjeu bi mooy Touba enjeu bi mooy le département de Mbacké cette fois ci dañ ci war a bokk donc kilifa yi jàpp leen xale yi. ngeen encouragé leen ngeen tàccu leen bu baax a baax a baax bu ñu demee élection ba ca suba ga ngeen woo leen sargal leen parce que cette fois dañuy gagné Bassirou Diagne wax na ko sànq Bassirou wax na ko sànq man ku ne xam na ne man bu yàgg ba léegi caaya laay sol waaye jënd naa ay jiin yu baax ak ay lacoste yu baax jënd ay dàll fas ko yéene takk nag wàcc ci terrain bi bas wax bas wax na ko provocation dëgg la mais cette fois-ci cette fois-ci cette fois-ci duñ may kenn dara loolu moom ñi jàkkaarloo dañ ko xam cette fois-ci ndaw ñi duñ may kenn dara. l'ensemble des SONES bu Touba ñoo ànd ci liggéey bi liggéey bi nag yaakaar naa amatul secret wàcc dem ci terrain bi la pendant un mois bu campagne bi ñëwee ñu dem ci soñe ku ne dem ci sonam campagne mais yaakaar naa tey la onze à partir de mardi ndaw yi danañ wàcc ci terrain bi danañu gis fépp ci Touba. dana ñu gis ci marché yi ñu gis ci kaaru gaaru ceer yi également ñu gis ci kër yi kenn ku ne danañ ñu fekk fa nga toog comme niñ ko defee woon élection passée yaakaar naa yéen journalistes si ay témoin ay mën ngeen ci témoin demoon nañ ci quartier yi lu mu gënoon a sori dem nañ fa jële woon nañ fa ay doléance loolu yëpp danañ ko jéem a matérialiser ci un mois bii ñu nekk muy pré campagne un mois bu saf sap di wax nag ndaw yi boo ko Yaakaar am nañ détermination bu saf sap boo xam ne liggéey bi nga xam ne nar nañ koo def duñ bàyyi kenn koo xam ne dana gàllankoor élection yi nga xam ne mooy déroulé war a déroulé ci mois de le 31 juillet bi ñu jëm am na ñuy taxaw ci wax di wax ci réew mi ne élection du am ñooñu dañoo njëkkoon a wax ne pare parrainage du fi am te ñoom ñoo njëkk yóbbu ci seen i parrainage élection yi ñuy wax ne du am seen seen seen seen mandataires yi ñu laaj ci département yi ñoom ñoo ko njëkk dem déposé te bu fekkee ne nañ élection du am te dëgg la ci ñoom ñoom buñ campagne mukk kon nag loolu mooy wane Sénégal rek ñoom dañuy soob di wax ci kaw waaye la ñuy wax ak la ñuy nar bokkut di wax waa Sénégal yëpp di jël témoin ci Sénégal yëpp wax ne président de la République Macky Sall ñëpp dégg nañ li mu wax démb gis nañ fii Touba ay diabolisation dafiy am gis nañ barki démb fële ca Sénégal ñu fay wate benn projet de loi boo xam ne malgré amul sax mbirum góor jigéen waaye dafa am lënt mais loolu Sénégal ak Libye gee nga xam ne sax amul état Sénégal rek ci état nga xam ne république la et Sénégal moo taxaw lànk ci ndigalu président de la république ne loolu kenn du ko wate ndax liirut kon jàpp naa ne ñi nekk fii ci Touba surtout ñu leen di wooye ay imam ñoom lay waxal yàlla dane yaayu légina amonoo in jaakum faasixun bi nabayin fa tabayanoo yéen ñii nga xam ne da ngeen a gëm yàlla te gëm yonente bi bu ñu leen indilee ab xibaar da ngeen koo war a gëstu ba mu leer rawatina koo xam ne da ngay nekk di xutba ci jàkk wala ngay wax mbooloo di la déglu bala ngaa wax ci mbir war nga cee am lu la leer naññ te bari na fii ci Touba ñu bari ñoo xam ne dañuy wax lu bari ci luñ xamut dañuy gis ay textes yuñ maîtrisé wut di ci wax ay nit ñëw wax leen ñu koy wax ngir seen i farfarloo jàpp naa ne nag képp ku dem bay wax ci kanam mbooloo ay mbooloo di la déglu rawatina ñu ñu lay tudde kilifa ak ñoo ngi leen mettre en képp koo xam ne wax na ci loo xam ne ndax ñoom ñooñu diine lañ jàng waaye ñun ñi di politique tamit diine lañ jàng ci daara yi lañ jóge texte yàlla yi gënuñu ñu ko maîtriser te gënuñu ñoo gëm yàlla gënuñu ñoo bëgg Serigne Touba gënuñu ñoo gëm alxuraan président Macky Sall mii ñu àndal loolu ñuy wax bu nekkoon ci moom ñun ñi duñ ànd ak moom suñu liste bii ñu jiite sëtub Serigne Fallou doomi Serigne Alaaji Baara moo ko jiite ci ndigalu Serigne Mountakha loolu bu amoon lu diine amul Serigne Mountakha du ko santaane na leer Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma di doomi Gaynde Fatma nekk ci biir liste ba loolu bu ci lu lëntu nekkoon duñ duñ ca dem li tax ñuy wax ci loolu nag dañoo xam ne Touba ñun dañu campagne ba sonn waaye ñi fi nekk di campagne ñoom amuñu benn wax amuñu benn kaddu lu dul ay waxi waaye di ay waxi góor jigéen ay waxi góor jigéen am na député bu ñu fi jàpp barki dem mu wax wax ju ñaaw joo xam ne dafa gàcceel képp ku dëkk Touba ndax jàpp naa ne Touba ku fi dëkk exemple nga war a doon a doon malgré sant Mbàkke jëlee naa nga sant Mbàkke mais royukaay a tuñ di takk ay ceen di xeesal te fu ñu la gis waxi góor jigéen ngay wax mel na da ngay def promotion góor jigéen te kenn mënta dégg sa làmmiñ wax ju rafet saaga nga nekk assemblée nationale ak wax lu ñaaw loolu de ñun bokkuñ ci woon ñu ko wateel 2017 ba mu dem assemblée nationale waaye ñoo ngi ci bàllu waaleel ak képp koo xam ne wateeloon nga Abdou Bakké Bara Dolly moom ba mu dem assemblée nationale te wax ju ñaaw ju mu wax ñu bari dañuy jàpp ne président de wax na ko képp kuy jigéen ci réew mi ndax dañ ne képp ku dugg ca palais ba def la noonu kon nag képp kuy jigéen di yaay wala ngay jigéen bëgg doon yaay wax ju ñaaw jooju yow la ko wax loolu nag li ci wax waa Touba ñu am fulla am fayda moom moo nekk ci beneen liste bi nga xam ne moom mooy liste euh, opposition yi bu fekkee nag wax ju ñaaw lañ bëgg cautionné ñoom bëgg cautionné wax ju bon loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne képp ku nekk Touba waroo d'accord ci loolu waroo cautionné loolu loolu nag mooy sanctionné leen liste bi nga xam ne nag ci la sëti Serigne yi nekk ci la nit ñu yaru yi nekk ci la ñuy bëgg a liggéeyal nekk bilan bi nga xam ne président de la République def na ko ci la nekk jàpp naa ne danañ ko défendre bu baax am na erreur bu ñu daloon nag ci élection locale yi démb dafa am sama benn xarit bu ne ma ndax conseil départemental am na man ko damaa gis ne bañ fale ba ñuy wate yëgoon waaye bañ falee ba léegi dégguma ko wax dara ci conseil départemental mais ko ba ka mën a liggéey conseil départemental di ànd ak état bañ leen ko waxee da ngeen a lànk jox ko ñoo xam ne ay opposition lañ bu ngeen leen ko joxee duñ toog lu dul ba ko falee léegi ma duggul ñetti weer réalisation yi mu fi def ka fa toog cinq ans defu ko ci ñetti weeri gala yi ñetti weeri gala wat na cinq ans yi Abdou Mbacke Ndaw Abdou Mbacke Ndaw moomu nag moom lañ jëlaat def ko ci liste waa Mbacke nag am nañ fayda yéen waa Touba nag laay waxal waa Mbacke ma Abdou Mbacke Ndaw ñu mu faa taxaw di leen wax dara ak la fa gala dem waa Touba nag nañ am fulla nañ am fayda bu dee dañoo bëgg développement ak réalisation yi président de la def nañ ko jox ay député yoo xam dañuy taxaw di défendre président nga xam ne warees na ko fayal Serigne Touba kii nga xam ne mooy le président Macky Sall moo tax ñu dajee tey jii fas yéene bu ñu demee ca fee nga xam ne fa ndawi réew ma di toog ñu fay natte kilo ceeb li muy jar di fa natte liitarub diw li muy jar di fa xayma lépp loo xamante ni si mooy doxaliinu réew mi suñu àggee ca bërëb booba ña ñu fay toogal nekk ay nit ñoo xamante ni si nit ñu ñu xam la doon ay om de qualité la doon ay nit ñoo xamante ni sii ñu am valeur la ñuy doon duma dellu siwaat ci ñooñu léegi ndax Basiiru Mbuub wax na ko léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk te nekk ay doom yoo xam ne ay sëti Sëriñ Tuubaa lañ waaye ni mu waxee léegi ci ne nit bu ñu la indilee xibaar te alquranul karim wax ko ne na ngeen saytu loola ba xam lu wér la lu war a génn wala lu wërte génn ñu bàyyiloo xel ñi ci dëkk bi ne ndaw ñoo ñii nag ñoo jóg ngir leeral dëgg ngir leeral dëkk bi li nga xamante ne sii mooy dëgg te mooy li nga xamante ne si moo leen di jariñ te mooy li nga xamante ne si bu ñu ci jàppee jàpp nañ ci li nga xam ne njortu nañ ne jàpp nañ ci bëgguk sëriñ ndax koo xam ne sëriñ bi moo la wax ne li ma yéene ci yow sama bopp doyuma ci sëriñ Tuubaa moo ma ci doy kon yéene jooju jàpp naa ne bépp ndaw wala képp koo xam ne nekk nga ci dëkk bi ci dëkku Serigne Touba yi war ngaa fas yéene dugg ca yéene jooju yi loolu yi nag la ndaw ñi xam tax ñu jóg jàppoo def benn bolok fas yéene nag dugg ci dëkk bi fépp fu mën a doon fu suñu tànk jote fu ne ñu dugg fa wax jëf yi nga xamante ne sii jëf na ko waaye ñoom it la nga xam ne seeni yitte la la nga xam ne mën nañ ko ci loola yi tamit ñu def ko bokk na ci programme boobu muy daaray alquranul karim yi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi te bërki dem ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moo ko waxal boppam ne bëgg nañu dimbali ko ci daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi rawatin nag fii nga xamante ne sii mooy Touba ñu wax leen lan mooy mébétam wax leen lan mooy bëgg-bëggam jàppale leen yi tamit ci ñoom la nga xamante ne sii moo nekk seen i bëgg-bëgg. juróomi at yoo xam ne taxaw nga assemblée nationale. musoo faa wax benn yoon lenn loo xamante ni si njariñal dëkk bi la musoo faa wax benn yoon benn aaya min ayatil quraniya mu jaar yoon wala nga wax min benn ci ahadis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jaar yoon te loola yaakaar naa gàcca la nit ki nag fa nga nekk turaas ba nga xamee ni moom la la yàlla bàyyee loola moom nga war a sàmm te loola mooy ñu sàmm dëkk bi sàmm ndonal Serigne Touba yi loolu nag mooy ndaw yii nga xamante ni si ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar loolu lañ fas yéenee def ci fan yu néew yi bëgg nag nit ñi comprendre loo ba bu ñu demee ca élection yi ñu wooteel lii nga xamante ni si mooy liste Benno Bokk Yaakaar bi te ñoo ñi ñu leen waxoon nekk di ay kilifa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu